mais mais Zeyno nii ah Miss Sénégal ba li ngay def waay bul dugal ay làmb sama diggante yow waay ah bu di bul yàq kii bi kumis kaay nii Sénégal ba mu daj yaa ko dàq. Sénégal.